الحمد لله الذي خلقنا لهذا وما كنا نخطأ لولا أن خلقنا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم doomu ndey yi mbokk ci nit ñi gannaaw bi ñu santee borom subhanahu wa taala si xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal maam ñu dajee si bërëb yi yenn bërëb yi di jaamu yàlla subhanahu wa taala di def li yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg parce que yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne yéen yéenee xeet bi gën ci xeet bi bu dee da ngeen di dégle lu baax tere lu bon fekk ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala kon ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala bu ñu boolee ñu am ci ñu bokk si kuréel boobu jéem a woote si yoon yàlla jéem a leeral diine jéem a jëfe ñaan yàlla mu nangu ñu gannaaw loolu tey ñi ngi am mbégte ñaari mbégte mbégte bu njëkk bi mooy di toog ak ki nga xam ne moom mooy suñu ustaaz si waxtaan nekk si wetam mu nekk lu rëy si ñun parce que daan nañu jóge fii di dem ay bërëb yu bëri géejaay fu nekk dugal nañu fa ngir ñi koy déglu ak di jël li wàcc si moom di ko jéem a jëfe kon tey bu ñu yàlla wërsëgalee ñu am toog si wetam maam di ko jéem a ubbil waxtaan pour mu waxtaan loolu dañ ne loolu mbégte bu réy la si ñun di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu saxal ko si yoon bi nga xam ne si la nekk ñeen yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral ko te nangul ko bépp woote bu mu mës a woote képp ku si mës a jóg yàlla na ko subhanahu wa taala bindal ko ay yool sotti ko si balance am yawmal qiyaam kon tey mbégte boobu la deuxième mbégte bi moom mooy place bi ñu nekk nii mooy jàkk ji nga xam ne saa saa yàlla wërsëg leen ñu ñu jullee fi fàttali tey suñu yaay yu baax maam invité yu si jàkk ji ñu amal ay waxtaan kon loolu te mbégte bu rëy la di ñaan yàlla subhanahu wa taala te mu saxal suñu yaay ji si diine maam yàggal ko fi si kanam yokk jàkk ji taxawaay ba société bi yëpp jëriñ ñu ci njëriñu jàkk ji yal na ko yàlla def ñu jël thème bu am solo fas yéene ko traité thème boo xam ne képp kuy jullit képp kuy déglu suñu kàddu war nga jóg maam ñëw assisté déglu ko dañuy am aajo fii nag bu waxtaankat ñëwee rek ñu commencé waxtaan parce que tey boo xaaree nit ñi rek amaana maam da nga fiy taal rek kon ñeent mooy loolu jàkka si société bi kon du ma si développé du ma si guddal damay bàyyi oustaz mu leeralal ñu ko man ak yéen yëpp ñu ànd taataan ba pare ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñu jëfe kon tafadal muskura ya oustaz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tal na ko yàlla dolli xéewal ba musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñoo ngi jéem sunu kéemtalaayal kattan fàttalante ak yéen ci tomb bii di المسجد دور المسجد في حياة المسلم دور المسجد في حياة المسلم أو في حياة الأمة دم جلت ولا رولو جاكا ci dund jullit yi wala ci xeet bi ci umma islam bi tomb boobu nag tënkoon nañ ko ci juróomi tomb wala juróom benn waaye li ma gis ci waxtu maa ngi ñaan yàlla sax yàlla nañ jeexal ñaar loolu lay ñaan ndax du lu ndaw te thème bi du lu ndaw bokk bi bi ma ko waxee yàgg na trop yàlla dimbali woon nañ tamit góorgóorlu nañ trop ci gëstu ci ba am lenn lu yàlla baaxee ñun indi woon ko bu ko fàttali sunu bopp fàttali ko jullit yi li ci njëkk mooy albidaaya min al masjid fan lan war a tàmbale ak jàkka wala jàkka fan la war a tàmbale ak ñut ñun ñu ne awalu ma qaama bihi ar rasul sallallahu alayhi wa sallam fi quba kaana binaa il masjid wa awalu amalin qaama bihi ar rasul fi l madina kaana binaau l masjid mbokk yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci yoonam muy gàddaay bàyyi ko màkk jëm Midine mu ñëw ba benn place bu tudd Quba mu tabax fa jàkk moo tax sax da ngay gis ci source l'islam yi jàkk yi ñu déggee ay tiyaaba ku fa julli am tiya tiyaaba Quba ci la bokk jàkk jooju la njëkk a tabax ci l'islam yonent bi egg Medina tabax jàkk ci yoonu tukki bi mi ngi ci yoon wi mu tabax jàkk te eggagul mu egg premier guddi fanaanul loolu ñu tabax jàkk loolu moo leen kon jàkk du lu ndaw yonent bi egsi na Médine ñii xëccoo ku nekk fan la war a nekk ku nekk naan sama kër lay nekk yonent bi ne bàyyi leen gëléem gi mooy wane fan laay dëkk bàyyi leen gëléem gi mooy wane fan laay dëkk gëléem gi dox ba egg ci benn bayaal daal di yës yonent bi ne fii gëléem gi yës fii la ñuy njëkk a tabax jàkka ci lislaam liggéey ba daal di tàmbali mu ne wa haza al amru lam yakun ala sabili al musaadafa walam yakun mujarradu isaara ibaara mu ne yonent bi nekk ci yoon tabax jàkk egg samp jàkk dina nekkul rek lu ñu war a lire comme feuilleton wala par passage nekkul aussi lu ñu war a joxoñ nii ci kàddu rek wax ko après mu jeex yonent bi day jàkk daf ko yitteeloon bi mu ne cëpp xubaar tabax jàkk dem bi di tab mu nekk ay wax déedéet wa hada manhaj asil fala qiyaama lil umma bi xeyri masjid mu ne loolu luñ ci war a jàng dégg ko ci mooy xeet wii di islaam cosaanam mooy jàkk xeet wi du mën a baax loolu jàkk yi def seen liggéey li tax xeet bi mel nii tey kenn ci ñun waru ci sikki sàkk jàkk yi ñoo defal seen liggéey jàkk yi ñoo dund waaw ku nekk ci oto di tukki te oto bi nga war baaxul chauffeur bi mënul dawal di nga yegg ñun ñëpp tontu bi mooy doo yegg boo yeggee dangaa rëcc yàlla la bëgg mbokk yi baat bi war nañ ko dugal sunu nopp ñun ñëpp waaye bu ci yemee du baax fala qiyaama li umma faya fala qiyaama lil umma islaamiya bi gayri l masjid xeet wi du taxaw mukk mukk mukk mukk su fekkee delloowuñu nit ñi ci jàkka yi aw qul la qiyaama lil umma bi xayri tafil dawrul masjid wala bu la neexee nga jël beneen terme nga ni xeetu lislaam day du ñu mën a taxaw bu jàkka yi deful seen rôle jàkka yi deful seen rôle xel yi du mun taxaw tey nag li ñu seetlu ñun ñëpp mooy ñun ñëpp li ñu gis ci jàkka mooy jàkka yi dunduñ ndax jàkka dafa néew ci Sénégal dama leen di laaj jàkka yi dañoo néew dañuy wax ne 40 maisons ak jàkka yi ndeyjoor ak càmmoñ loolu amul Sénégal loolu amul Sénégal kenn du compter 40 maisons lu dul balaa ngay am 20 wala 10 nga compter jàkk ma ne kenn du ne 1 ba mu nekk 40 nga doog a am mosquée loolu non amul Sénégal Sénégal boo nee 1 2 3 5 sixième bi jàkka la wala quatrième bi nekk jàkk waaye jàkk yooyu li ñuy bari yëpp dañoo defal seen liggéey. هذا هو الأمر لكن الكثير منها غير مفعل ولا يقوم بدوره المنطوط به jàkk yi lu ñu bari bari jàkk yi amuñu njëriñ jàkk yi la taxoon yonent bi tabax jàkk ak jàkk yii dañoo wuute mu ne yuqti'u man yazannu man yazunnu anna dawru almasjid yaqtasiru ala adai salati alxams fa xasb juum na wala jàdd na koo xam ne jàpp nga ne rôlu jàkka mooy julli kese kooku juum na te ñun loolu mooy suñu problème soo ne woon jàkka ji lu tax ñu tabax ko ñu ne pour julli voilà jàkk ju ngeen romb soo posé question waa jàkk yi yéen seen jàkk yi tax ngeen da wax ñu ne dañuy julli waaye après mu ne dañ koy tëb bal sax yenn saa yi nga bëggoon ne benn baa dañuy dem jàkk ci waxtaan mu ne jàkk waxtaan génne leen basan yi ci biti kenn du fa waxtaan jàkk ji tabaxuñ ko pour loolu wala bu ngeen dégg loolu chaque jour loolu moo tax xeet wi deltu ginnaaw mbokk yi bu ngeen bëggee dégg dëgg loolu tax jullit ñi réer loolu tax jullit ñi sànku loolu tax jullit ñi amatuñu formation islamique bu wér ndax lañ jàpp bi nga xam ne ñun ñëpp ànd nañ ko jàpp ne tabax jàkka mooy julli kese kese kese amatul leneen julli kese bal innahu fi baadi dowal al islamiya yatimu xalqu l masjid baada aada isala mubaasara bal sax dem nañ ba yenn dëkk yi wala yenn gox yi yenn quartier yi ginnaaw asalaamu aleykum imaam rek këriñ maa ngi fàttali ko suñu koñ am na sama benn papa bu tuddoon Mamadou Thiam yàlla ko yàlla yërëm dañ ko tëj ci jàkka ji diggante timis ak gée fekk mu doon naafila julli timis ba pare mu reculer comme moom du yàkkam ci julleem kàbbar jël temps bilaal bi taxaw di ko xaar taxaw di ko xaar baa bi yéex rek mu tëj ko ci biir jàkka ji dem baa bi nekk ci biir jàkka ji nekk ci biir jàkka ji ba gée jot mu ubbi fekk mu taw nee naa la gaawal ngay dof dof suñ jullee gee pare boo fu ko defaatee fii laa lay tëj dem tëj baa bi bàyyi ba julli gee ba pare ndeysaan mu defaat jëlaat temps naa fii la génn ñi ko tëjoon daal dem këram mu fekk ko da ko sow soo li ngay def nii ku la ko diggal mu ne ko imaam imaam moo ko wax imaam moo ko wax mu ne ko sow bu la imaam waxoon nga jël sa loxo dugal ko ci xal di nga ko dugal waaw xam nga ci dara de man daal imaam ma ko sant dama koy def mbokk yi ci sunu gox yëpp li ëpp wala yenn réew yi mubashara en direct bu ñu sëlmalee dañuy tëj jàkk ji bu ñu sëlmalee rek tëj jàkk ji wa kaana dawruhu lwaxiid wa salaa faqat moo tax ñu dem ba ñun ñëpp ñu jël culture ginnaaw julli juróom rek lu ñuy def tëj jàkk ji bu ñu jullee fajar pare tëj jàkk ji bu ñu jullee tiswaar tëj jàkk ji bu ñu jullee taksaan tëj jàkk ji bu ñu jullee timis tëj jàkk ji bu ñu jullee gee tëj jàkk ji ixwatal imaan fi lxaqiqa dëgg-dëgg bu ñuy jàngat danañ gis dawrul masjid fi l umma al islamia ama aqmau min zalik ahmaqu min zalik bi kasir suñ doon jàng histoire islam di jàng histoire jàkka danañ fekk taarixu jàkka gën a xóot loolu fukki junni yoon julli tëj amul ci islam julli tëj amul ci islam waaye nag julli tëj bi aussi jaadu na de jaadu na lu tax ndax dañoo dépassé ci jàkka yi règlement fi ko yonent bi régloon mais fii la war a yem waaw jàkka joo xam ne sàcc bi bu sàccee jàkka ji ba pare day tukki dem Europe ndax da ci am biir ah jàkka jooju foog bu ñu julee pare ñu tëj ko li yonent bi waxoon mooy nañu defar nit ñi ci jàkka ji léegi nag ñun defaratuñu nit ñi jàkka ji la ñuy defar dégg leen wax bi de dañu laaj al imam xasanul banna benn waaye bëgg indi fitna ndeysaan fitna ci ñaari mbooloo islam yu nekkoon Égypte haaji ne ko imam dama lay laaj benn laaj ci conférence bu fees dal frère musulman yi ak ñeneen mu ne ko imam damay laaj ñooñu naan ixwaanul muslimin ak ñooñu naan jamaatu jihaad ñan ñoo gën ndax man damaa gis ne sax jamaatu jihaad moo gën ndax ñooñu ñooy tabax jàkka yi léegi dama bëgg yow nga tontu ma imaam na ko dëgg la jamaatu jihaad baax nañ de ndax ñoom ñoom ñooy tabax jàkka yi buñ tabaxee ba pare nag ixwaanul muslimin mu ñooy indi nit ñi pour ñu dugg ñu mu ne kon ñaari mbooloo baax na te gis nga keroog doon na fitna boobu rek leewoo naa yéenay tabax jàkka yi bu ngeen ko tabaxee ba pare ñun ñooy dem indi nit ñi pour ñu julli allahu akbar gis nga hip moo tax chaque jour ku xamul war na moytu borom xam-xam benn waaye dafa ñëw ci imaamu ahmad ne ko imaamu ahmad su may julli xam naa sama kanam bi fan laa koy jubal waaye bu ma demee géej gi sangu simmeeku dugg ci biir sama kanam gi duma xam fan laa koy xool fan lay jublu mën nga tontu ma nag ku dugg géej di sangu fan lay jubal kanamam gi imaam ne ko ah li gën dey mooy nga jubal ko fi nga summi sa yére balaa ñu koy sàcc nga ñibbee taatu neen li gën fi nga summi sa yére yi nga jubal fi sa kanam gi balaa ñuy sàcc sa yére nga ñibbee yaramu neen alaw ixwatal imaan jàkka rolam ci islam ëpp na fi ñu ko natt ñun fa laysa qiimatul masjid fi hajmihi faqat jàpp jàkk sa waay li tax li ew tey ci jamono bi di tiitaru suñu jàkke ji ikarmar suñu jàkke ji terrasse la woon def nañ ko étage gis nga léegi loolu waxew fikin jàkkee bi étage di tiitaru jàkk joo xam ne bu ñu ko defee étage ba pare après ay agresseurs ñoo fay jullee ay sàcc ku fa yóbbu daal am na ñoo xam ne sax sàcc moo leen fa yóbbu loolu dafa am njëriñ jàkk du jëmm ji du haut-parleur yi du moquette yi du rajo yi du luñ def ci biir déedéet jàkk doyewuñ ko loolu jàkk wala fii shaklihi du forme bi wala fii zaxrafatihi du dessin yi fa def wala mani lazi fatahaw du kan moo ko ubbi jàkka ji biñ koy ubbi le grand xalif al imam al cheikh al muqaddam al al al al al moo ñëw axi loo am benn njëriñ tey loo nga gis jàkk ji laax bi ñu koy ubbi ah ma ne bu gisee sa waay ki ñëw loolu mooy loolu mooy ñu ni problème ndeysaan jàkk sàkket ak jàkk carton ak jàkk étage noo yem ci yàlla man banaa lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna jàkk du xiima bi du dessin yi du forme bi du jëmm ji du importance biñ ko war a jox kan moo ubbi jàkka ji te saa nga dañ ko ne ii man jàkka jooju rek laay julli ñu ne ko la mu ne diw moo ko ubbi moo fa jëkk a julli ñaar raak xam nga ne man di jog man nit akal la akal la koy dégg ko bëri moo tax fii lu ëpp ku tabax jàkka pare bala nga koy ubbi rek nga dem wooyu diw waaw wooyu diw diw ñëw gars yi raam ñu organiser ay baas rey ay nag ñu ne na diw ñëw ubbi jàkka jooju loolu amul importance mbokk yi ixwatal iman fa hadihi kulluha shakliyat fariga la qimata laha li yëpp ay mbir yu amul benn importance la amul benn valeur ci yàlla étage karamar moketu jidda ay rajo douze xaw ma cinquante volts ay dessin ci biir ay tapp yoo xam ne kenn xamul amul benn njëriñ ki ko ubbi amul benn njëriñ fa yàlla yooyu ay mbir la yoo xam ne amul benn mbir amul benn njëriñ waaw bal aks min zalika ar rasul sallallahu alayhi wa sallam kaana yanha an hadihi sakliyat li garaaw sax mooy yeneen di doon tere lool yonent bi li mu tere woon tey loolu lañ def suñu jàkk yi li mu doon tere wa kaana yanha an mubaalaga fi tazyin al masajid da doon tere yonent bi ku orne jàkk moo tax loo gis ku ne allahu akbar war a xool ci suuf di xool moket yi moket yi dessin yi garaaw na tere yi ñoo jub waaye ñu ne leen bët yi te mu ngi kabar de moo tax fitna la wala mu ne allahu akbar ni nii waaw montu bi xel mi naan ko waaw montu bi garaaw na te mu ngi jàng fatiha alhamdulilah rahmaan rahim xel mi naan ni montu bi garaaw na montu bi or la wala la mos naa jiite ay nit ci benn jullikaay bi ma sëlmalee ñu ne ma bayaanal ma ne leen yan saar laa jàng ci julli yi kenn xam ko te julli timis laa dama jàng ci kaw mu sëlmal ne leen yan saar laa doon jàng yan aaya kenn xamu ko te saar yi gàtt la woon kenn xamu ko gars yi naan ah i wax nga dëgg ku nekk naan di xalaat ñuy xalaat ñuy xalaat ba mu am ay quelque waxtu tolloog ay minute kenn ne waaw dafa mel ne nangam nga jàng keneen dafa mel ne nangam nga jàng loolu mooy kenn teewluwul julli gi ndax lu tax yenn saa yi seytaane moo lay këf duggee ci jàkka yi oo yee nga julli mais da ngay nekk ci rafetaayu jàkka ji moket yi karo yi moom fii imaam bi fi muy taxaw ah nga naan nii saxel di nekk ci yooyu moo tax yeneen bi tere ku taaral jàkka yeneen bi daf ko tere waaw kaana yaqul sallallahu alayhi wa sallam la taqumu saa hatta yatabaaha annaas bil masajid yonent bi dee na yowmal qiyaam du taxaw mukk loolu nit ñi dañuy puukare ci ay jàkk loolu am day am na bi mbooloo yu commencé tabax jàkk ñoom daawuñu tabax jàkk léegi lañu commencé tabax ay jàkk waaye dem fële suñu jàkk ji ay léegi boo demee Dakar suñu jumaa ji boo demee ginnaaw raay suñu jumaa ja boo demee assemblée jumaa ja ci teroo jàkk amul njëriñ yonent bi dafa tere ñuy taaral jàkk lu tax parce que nit ñi dañuy dem ba léegi taar rek forme moo leen fay yóbbu moo tax yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne wa hada alhadis fi musnadi imam ahmad ibnu hanbal rahimahullah wa fi sunani abi daawud wa nisaa'i wa ibnu maaja wa saxu ibnu xibbaan an anas wa lafzu li ibnu xusayma mu ne yaati ala nnaasi zaman yatabaahuna bi fiihi bilmasajid ثم لا يعمرونها إلا قليلا yonent bi alei salatu wasalaam nee na jamono ngi ñëw mooy suñ jamono bii nu nekk yonent bi ba mu koy wax ba yonent bi di wax lii septième siècle la woon tey ñu nekk ñaata vingt et unième siècle yonent bi ne jamono ngi ñëw nit ñi day tiitaroo jàkka rek la ñuy def taaral jàkka ji ba mu raj ba mu taaru waaye laa yaamurunaha illa qalilan da ngay gis ci bi ñuy laaj cotisation ci koñ bi waaw cotisation la ñuy joxe de da nga dégg wala xaaral leen ma ñëw dem ubbi coffre-fort bi génne deux cent mille ne waaw ci koñ bi laa dëkk te xam ngeen ne man ci cadre yi koñ bi laa bokk kon man bu may joxe dama war a joxe lu takku léegi nag waa jooju nga xam ne joxe na deux cent mille mosul julli fajar ci jàkka ji boo ko newoon imaam bi nu mu tudd imaam bi nu mu tudd bi ngeen ko tëjee ak imaam imaam imaam sant ba yow baaxoo ku baax ci quartier ku ne imaam war na laa xam kuy jullit ci quartier kuy jullit laa wax ci quartier su la imaam xamul doo jullit ku dëkk ci quartier te imaam xamul la doo jullit loolu lu muy tekki bu la imaam xamul di ngay gis ku dëkk ci koñ bi ba dee ñu ni ko ci morgue bi ñu ne imaam te dañoo am koñ bi dañoo am daj suñu dëkkandoo bi mu ne kookan la ñu ne ko borom étage bi mu ne ah kookan la gars yi naan Sarr Thiam Sow mu ne man koo xaw ma ko de xam nga ne kooku kaña la du am julit kon farmu jàkk tiitaroo jàkk ci islam dañ koy tere yonent bi ne dañuy tabax jàkk ji ba mu rafet waaye nit ñi duñ ko dundal duñ dundal jàkk bi kenn du ko dem boo ko rombee nag jàkk baa ngi nii macha allah waaye boo ko demee fajar yow man xiyaam bis buy nekk fajar sénégalais yi wër dund na defee ñu ngi ne la te pourtant mbokk yi ku fi doon tukki ñu ne avion bi quatre heures du matin lay décollé gis nga ñi ñi aji màkk sax xam nañ ko neuf heures ci suba ngay dem de ñu convoqué le trois heures du matin nga ñëw aéroport doo am foo toog amul ban amul dara nga gis ndeysaan ku ku jël kaalaam daal di lal tëdd waaw ba heure bu jot xam nga waa ji lu muy wax nii moo gën très bien voilà gars yi ngeen leen di wax fii 9 heures ñuy tardé mais bu ngeen convoqué nit ñi 3 heures du matin ñun ñëpp ñu daje fi toog fii ba heure bu jot ñu dem lii moo gën yow ni nga def noonu la kon ñëpp ay kontaan ah buñ nee rendez-vous julli fajar ci jàkk ji rendez-vous julli maa ngi liiral barki démb mbokk yi rek maa ngi liir nii benn waaye ñëw bëgg takk jabar ci benn borom xam-xam ma ne ko sa doom bu jigéen bi laa bëgg mu nga may ma ko mu ne ko waaw naa la ko may kay waaye du charte mu ne ko ban charte mu ne ko instant bi may wax yow julli fajar ban heure la waaye naan ah julli fajar julli fajar julli fajar mu ne ko duma la may sama doom allahu akbar gis nga paa boobu mbokk yi julli fajar ban heure la instant bi waxuma loolu julli fajar laa ma leer la
waaye vingt cinq lañu gis ñu jàkk
gis ngeen de gis ngeen de ndeysaan paa boobu dama ko font wala dafa jik waa ji ne ñëw ne ko dama bëgg dama bëgg nga may ma sa doom dama bëgg nga may ma sa doom mu ne ko julli fajar ban heure la waa ji ne fat mu ne ko jógal jógal jógal ku xamul heure julli dama ko may sama doom wallaay wax na dëgg est-ce que ñun loolu xoolal tey bu kenn ñëwoon di ñu ne dama lay ñaan sa sœur wala dama lay may ñaan ñaan sa doom da nga naan am ngeen problème ginnaaw suba doo contrôlé mu nag waa ji jullit la gis nga góor gi moom waaw dafa am ñu xam ne diine da leen a ñor xaal ko xamul julli fajar ban heure la yow di nga julli fajar ci heure bi jamais kon nañu suñu diine ñor islam bi du tabax rek ay jàkk defar ko ba mu rafet da ngay gis koo xam ne day ñëw ci benn koñ benn terrain ba pare ñoom li ñu gëm mooy naa nekk ci lu araam bu ma tabaxee jàkk yàlla dina ma baal luy lañ gëm nga gis ku dem taño ay milliards ñëw defar benn jàkk waaw gaa ngi di julli nga defe ne am nga tiyaaba fekk mi ngi mel ne ku dem àll ba mu pare daal di wisoo ay laabam ay ay ay daal di laabo ay sawam inna allaha la yaqbalu illa tayyib inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban loolu nañ ci bàyyi xel beneen yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne fa rubama tajid insanan yaqumu bi binai masjidin kabir summa la tajid al musallina illa saffan aw saffayni day gis benn waay bu dem ci ay cité yoo xam ne cité yi kenn mokkul fa fatiha waa ji daal fay jël treize hectares tabax ko jàkk def ci lu ne am na ci yenn gox yi waa ji jàkk ji muy tabax bu tàllalee jàkk ji lo boo tàllalee jàppukaay yi loxo rek boo nee nii rek ndox mi ne sottee doo laa rosoo robinet billaahi wallaahi taala nii nag ngay def rek ndox mi sottee ko nga raxas sa loxo mu taxaw nga ni waa nii ndox mi sottee billahi wallahi taala xolal xolal loolu financement xaalis boobu mbokk yi waa ji def loolu lépp jàkka ji fa mu ko tabax jàkka ji du am sàppe ponkalu jàkk dama romb benn jàkk ci autoroute bi booy dugg booy booy duggee autoroute bi rek paya tiwi ba yéeg nii rek à droite maanaam su muy tàqali ko Carrefour bi lii jëm Grand Yoff lii jëm autoroute am bi ñëw nii di jëm Koutiou Koutiou boo yéeg nii di dem mel na ku jëm Colobane boo yéegee nii rek à droite yenn jàkkaa ngi foofu man kii moom jàkka ji comme comme dawara fonk lu jàkk jàkka ji mosuma gis mu ubbeeku foofu oto sax du fa taxaw nit dëkku fa nga ñëw ba foofu tabax jàkk pour kan la jàkka ji pour kan la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndeysaan moo tax boromam dañ doon wax ne al madarisu qabla al masajid wala ñu doon tabax jàkka yi dañ tabax école yi ba pare waaye bàyyi jàkk morgue boo ne jàkk ñu ne déedéet école ñu ne déedéet day xatal fii rek fekk fu nit ñi dëkk li ñu waroon njëkk a def muy tabax école bi ba pare te pourtant yonent loolu la doon def jubluwaay yonent du tabax jàkka ji rek maanaam jàkka yonent bi dina ñëw léegi ci jàkk yonent bi lan la woon loolu moo tax tey ñuy ñëw di tabax ay jàkk jàkk yi amul benn njëriñ benn waay bu nekk correct bu ngeen demee Casamance dafa am benn mbooloo bu fa nekk bu tudd hayatul amal al xayri déedéet nu tuddati sax ah lajnatul muslim al afriqiya loolu la tudd lajnatul muslim al afriqiya ñooñu xam ngeen lan mooy seen rôle Casamance tabax ay jàkk rek léegi nag gars yi dañuy ñëw rek ne ko dëkku sàngam tabax nañ jàkk dëkku sàngam tabax nañ jàkk dëkku sàngam tabax nañ jàkk yónnee ko photo yi. waa ji kontaan ba benn bis rek mu dëgg bii ñëw mais day xool si jàkk yi gars yi tabax mu ñëw jàkk ju mu dugg rek bu ñuy julli mu gis fa ñetti nit jàkk ju mu dugg rek gis ñetti nit yii du ci gis sax nit yii du ci gis sax picc ñoom ñi ñëw ñooy noor du julli mu ne yéen ndeke yéen li ngeen amul njëriñ jàkk yi ngeen tabax kenn du ci julli amul njëriñ Sénégal instant yi tabax jàkk doy na d'accord ngeen ci loolu d'accord leen tabax jàkk doy na Sénégal li koy xam nga lu ñu war def tabax nit ñi waaw li si ñor tontoon waa ji ah ñun nangam ñun nangam mu ne ko ñun nit ñi la ñuy defar nekk ñu fi di tiitaroo ay jàkk ak dëkk laal wax wax waxu dëgg la nit ñi lañu war a defar mbokk yi nañu góorgóorlu ci defar doomu aadama yi ndax tabax jàkk joo xam ne kenn du ko jul lu dul ñaari nit wala ñetti nit wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ma umirtu bi tasyid al masajid yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla digaluma pour may may taaral ay jàkk mu ne wa maana tasyidul masjid arrafqu fawqa alhaaja lan mooy taaral jàkk mooy jàkka ji ñu yóbbu ko yóbbu ko lu ëpp loo xam ne kenn soxlawu ànd ak benn naar ñu taxaw ci suufu xaram bi màkka ci buntu kaaba gi ñuy xool montre bi Malik Abdallah defal Arabie Saoudite nga xam ne mooy akbaru saa fil aalam mooy montre bi gën a rëy ci àdduna bi ñu may ñu histoire montre bi ñuy wax ñaata milliards lañ ci def aiguille yi rek ay tonnes la ay doomu aadama ñoo ko doon def rek doomu aadama yi ko doon ci biir lañ nekk di dox ci biir montre bi di ko defar xam naa nombre bi sax xam naa ko mu ngi ci document yi naar bi ñuy liir di liir ba caag naar bi xool ba caag seen ñi ñoo mën a yàq mu ne pourtant boo leen laajee dañ naan macha allah islam lañ liggéeyal mu ne lii amul amalul xeetu islam bi njëriñ lii doom julli lii mu ne boo demee Afrique tey ñaata ñoo fa nekk di souffrir ci alamul islam yi ñaata nit ñooy souffrir alal ji au lieu ñu jox ko ñun. ñu dem ci histoire Kaaba gi ñuy wax buntu Kaaba gi. ñaata kilo or la biñ koy xiima treize millions rial la ñu koy xool CFA mu nekk deux milliards bu manqué tuuti mu ne ma xoolal leen buntu or kaaba buntu or amul njëriñ mu ne ma lii julli di ñoo ko aajowoo dëgg la xam nga yonent alayhi salaatu salaam boo fi nekkoon du def buntu bi buntu or lu toll deux milliards nga xam ne tey ku ñëwoon Afrique baa ngi bàyyi sànq maa ngi koy wax nii ci Facebook bi di ko liir waxit Abdou Salam Bali borom xam-xam boobu nga xam ne tey mu ngi ci Afrique di tuubloo ay nit di ñaan ay ndimbal ay jàngalekat seen salaire temps la muy wax damaa soxla nangamu jàngalekat jàngalekat bu nekk nangam la war lañ ko war a fay. loolu laa bëgg jullit yi dimbali ma ci wala loolu waxuma la moom mais ñun rek tey Sénégal est-ce que soxla nañ ay jàngalekatu diine wala soxla wuñ ko jàngale ñu ngi ni daara yi am problème kon yonent bi day tere ku tabax jàkk lu ëpp lu ñuy doyee aajo ji ibnu abbas nee na la tusaxrifannaha kama zaxrafatil yahud wa nasaara ay mu ne naxtamu bi shakliyaat min ruxaam wa marar wa xuli ibnu abbas nee na giñ naa ci màggaayu yàlla di ngeen taaral jàkka yi comme ni yahudi ak nasaraan yi taarale seen église yi ak seen temple yi di ngeen ko def nañ ko tey am na ci yenn jàkka yoo xam ne boo fa duggee daanaka balaa ngay julli da ngay xool di seetu di seetu ba doyal doo ko ne allahu akbar est-ce que loolu kese moo fa yóbbu nit ñi waaw taxaw nañ buntu Médine benn waaye xool jàkk bi jàkk mu ne cëg suñu jàkk ji nii la mel ku yaa mun a fen ku yaa mun a fen ngeen mun am jàkk bu mel nii billaay fekk jàkk suñu jàkk ji nii la mel ku yaa mun a fen gis nga yooyu lañ fi nekk di puukare di tiitaru di concurrence concurrence jàkk même koñ yi jaar leen bii diis mbedd moomu ba ba nga egg tali bi mag dañuy concurrence jàkk ñëpp toj nañ ña ngay def ay étage ñëpp li ma leen wax ni bu ngeen sëlmalee jëm leen ridis jaara def li ngay boo tàmbalee jàkka ndànk ndànk yéeg ba ba nga egg tali bi mag ñëpp toj nañ ñi ngay étage waaw nga gis paa yi ñooy gis ngeen ñooy ñëw ci jeunes yi ne leen gis ngeen yéen tekku leen dara xoolal ñoom diw ay xale yu ndaw ñoo fa nekk gars yi daal di jéggi dimanche matin ñëw dóor jàkk ji mu daara ñu taxaw commencé après jeunes yooyu kenn du ci julli jàkk kenn xamu ci boo nekkee ci kanamu jàkk ji looy wax loolu dafa am njëriñ mbokk jullit yi yeneen bi daf ñoo tere ñu yittewoo forme forme jàkk yi ci defar leen ay ay ay tuile ay karoot ay kenn xamul yooyu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu ko tere su ñëwee ci dawrul masjid fi xayaatil umma li ma doon wax sànq yëpp muqaddima la ñu ngi doog a ñëw ci thème bi mu ne almasjidu fi hayati l umma lahu adwar fi gaayati l ahamiya su ñëwee ci lan mooy rôlu jàkka ci xeet wi danañ gis jàkka rôle bi mu ci yor kenn xamul nu mu toll mu ne ahamu dawri l masjid huwa alxifaaz alal imaani al muslimin li njëkk ci rôlu jàkk ci xeet bi mooy lan mooy jàkk mooy wattu ngëm Hmm. jàkk mooy wattu ngëm mbokk yi lan moo tax léegi amuñu ngëm parce que jàkk yi dunduñ jàkk mooy wattu ngëm lii wattu ngëm bu fa nekkulee ndax ngëm gi dana fa nekk ngëm gi du fa nekk kon jàkka yi forme bi fa nekk tabax ak ciment rek moo fa nekk ak ay moquette yi ñuy jullee benn waaye nee na ma démb damaa dem marché Sandaga jënd ay moquette lu mat benn rouleau ndax jàkk ji pareegul dafa nekk en chantier mais comme ay mo- ay ay ay basangu tigo lañ fa defoon gars yi di julli ku pare rek sa xel nekk ci kéré bi tigo mu ne ma ñëw génne basangu tigo yëpp yóbbu ko ci ginnaaw daal di jël ay moquette bés tàq ak ci kanamu jàkk gis nga waa tigo sax xam nañ waa tigo bu ñu mayee ba- waa jàkka yi ak waa Sonatel bu ñu mayee pas jàkka yi ay basang wala waa orange bu ñu mayee pas jàkka yi basang basang yooyu lu ci nekk
Ah, dañ si ñëw dañ bëgg publicité luñ bëgg publicité rek.
nga ne allahu akbar ne ni gis ñu bind tigo allahu akbar ñu bind orange allah nga bind ñu bind expresso dana yaa ngi allahu akbar ngay ri ko ne nii gis ñu bind beneen bi nu tudd kii Keneen.
sa julli googu fu mu jóg ah moo tax yonent bi di tere yonent bi lu mu tere rek dëgg la sallallahu alayhi wa sallam kon lii wat jàkka premier rôle am nañ ko xam mooy lan ngay wattu ngëm wa hada huwa al asas ar raisi loolu mooy premier point principal fondamental bu mat mooy jàkk day wattu ngëm allahu akbar jàkk nekk day wattu ngëm waaye léegi nag ki dem ba ci jàkka ji sëlmal daal di yóbbaale ay dàll wala bàyyi ba guddi mu ñëw wekki montre jàkk ji wala mu wekki rajo yi te ñu ne man jàkk day wattu ngëm ah fii sàcc nañu leen Jënd yu wàllam jënd wàllam.
waaw léegi nag ana ngëm gi ñu waxoon ne moom la jàkk di wattu di xootal imaan na ñu xam ne fondement bi njëkk mooy jàkk day wattu ngëm allazi itta- ittahada nabi sallallahu alayhi wa sallam an yagrisahu fi nufusi ashaabi fi makka yonent gis nga bi mu nee cëpp màkk amul woon jàkk dafa organisé daarul arqam di former gars yi pour ñu am iman moo tax gis nga ba iman bi dëgëre lan nga gis ñu leen di dóor di leen rey di leen lakk waaye kenn ci ñoom murtadul da ngay dégg sax waa taarix ulamaawu taarix dañ lay wax ne ñi murtad yëpp waa màkk bokkuñ ci naafiqi aussi ma boo maa màkk bokkuñ ci moo tax bañ leen ne je gàddaay bàyyi leen li ngeen yor ngeen gàddaay ñu bàyyi ñi bàyyi kër yi ñi bàyyi soxna yi ñi bàyyi liggéeykaay yi ñi bàyyi alal yi ñi bàyyi tool yi ñi bàyyi commerce fu ngeen jëm ñu ne ila allahi wa rasuli inni muhajirun ila rabbi est-ce que iman dugg na waaye nit ñoo xam ne jàkk yi amul iman jàkk ju amul iman boo ko jullee ah ndeysaan dañu taxaw buntu Madina rek ñu noot allahu akbar allahu akbar rek benn waay yuux ñu ne ko loolu mu ne musuma dégg noot sama yaram bi mooy daw nit ñi tee waaji waaji mënatul taxaw muy lox ba egg suuf xam nga loolu mooy noot waaye fii noot boo xam ne boo ko déggee dañu ay bërigo yu daanu da ngay gën a nelaw sax wala mel ne xaj yu xiiru di mbagu ah boo duggee ci jàkk ji imaam bi bu ne allahu akbar buy tari nga yëg yaa ngi julli fii lu fi nekk daanaka am na ñoo xam bu ñuy tari sax julli julli biiral doo ko dégg day pare nga ne imaam lu mu doon jàng mu ne man xaw ma ko waaw yéen seen ministre imaam nii la mel du wax ci kaw te bu ñu génnee ci mbedd bi moo fi dàq wax waaw léegi nag waaw sunu benn sëriñ demoon na ci benn imaam bu yàq Fatiha mu ne ko sëñ ni ngay waxee di kii du noonu mu ne ko yéen seen bos ak suñu bos du benn mu ne ko ah yaa ngi koy fàttaliku mu ne ko seen bos ak suñu bos du benn yéen ñi ngeen koy jàngee ñun du benn ñaari Fatiha dafa am mu ne ko déedéet benn bi kese la dina ci fee ko mu ne ko mani ni ngeen koy jàngee ak ñun du benn laa la wax waaw loolu laa la wax ne wax naa la ko pare naa ci imaam sëriñ bi daal dégg daal ak ñibbi loolu mooy si problème jàkk yi am ngëm yonent alayhi salaatu salaam li mu njëkk a def ci jàkk ji mooy fexe ba gaa ñi am ngëm fii nufusi ansaar wal muhajirin yonent bi tabax ba mu ne këcc ci waa ansaar ak waa muhajirin mu defar seen ngëm ba mu ne këcc mi jàkk ci wal masjid ayuha al ahbab kama yuzuru ismuhu al makan li sujud li rabbil alamin al masjidu lan ngay dégg ci baat bi yow mi jàng arab makaanun li sujud makaanan li ibadat isan place bu ñuy jaamoo yàlla la kon boo duggee ci place bu ñuy jaamoo yàlla yàlla indi la naa fa war a mel wala ñun tey ci jàkka yi bu ngeen duggee tribunal sama benn jarbaat dafa am problème tribunal ñu dem xëy suba ñun ñëpp ñu dem tribunal Dakar ñu dugg toog ñu jëkk-jëkk rek ñu fëgg table këng këng këng këng këng ñëpp jóg taxaw ñu ne mbaxana yi gaa yi ne nii ñu ne verre yi gaa yi ne nii ne portable yi ku fi sa portable sonné am nga problème ah ñëpp fay toog leen ñëpp toog ah waaw moom moom tàng na di suñ ñëwee ci jàkk mbokk yi suñ ñëwee ci jàkk li gën a gaaw man chaque jour daf may daal damay dañuy li xaam ma taxaw balaa may jiite mbokk jullit yi ñu ne ah defar leen sàppe yi dañu fexe suñu suñu tànkeeg suñu mbagg yi si sant mbokk yi ku fàtte ci ñun fay fa sa portable fayal wala nga def ko waaye dana nag allah rek nga ne ko ne ko ne ngi ne ngi ngi ngi ngi te li garaaw kooku au lieu mu mu mu fay ko da koy day coupé su coupé waa ji woowaat ko au lieu mu fay mu coupé waa ji di ko woo di ko woo wallahi alazim du ma fen am na ci yenn enregistrement mu ngi ci suñu waxtaane ci site internet bi al afia ci xutba laa nekk minbar jour vendredi di xutba benn waay jëkk ah waaw waaw waaw ah ñëpp nekk nii waa ji mu ngi troisième sape affaire bi ko bindee ñu yaakaar na jeex na faraw lu salima waa ji rek benn waay ne ko fay ko jóg jóg ma ne ko bàyyi ko ci xutba bi ma ne ko bàyyi ko bàyyi ko bañ pare mu pare rek gaa yi wër ko xool ci biir xutba juma su suñ jàkk yi ñu amul njëriñ fët foo dem problème boobu la te xoolal bu dee biir tribunal ku fa sa portable sonné xam nga lan mooy problème bi waxuma nga fay de mais da nga ci bëgg a jot mu tëla tëcc ba pare procureur nga jëm mu ne la yow de yow da nga ma yem may wax sa portable di sonné mbax ne moom kenn du ko fa sol ay verres yu ñuul kenn du ko fa sol léegi ne simi eh simi sa verre yow nga simi boo waxee ñu ne gendarme ñu jël la dugal ci biir néeg bi moo tax foofu ñëpp normal léegi nag bu ñu duggee ci jàkk nga gis ku tàllal tàngam fële ku dangiral fële bu ñuy defar sàppe yi mbokk yi defar sax nga gis paa bu ne nii biiram lu këj nga ne ko góor gi mu ne la saa fu ma laal amoon nañ benn paa boo xam ne suñuy li xam ñu ne defaral sàppe yi boo ko ne ni mun a sa baaraam tànk yi bu ma laal bu ma laal laal dangal ma la sa yàpp bu ma laal waaw léegi jàkk ji fu muy fu ñu julli di baax yow da ngay ñëw jàkk doo ñemee laal kenn da ngay moytu am na jàkk yoo xam boo dugg da ngay moytu da ngay bàyyi ba ñu ne bismillah nga ñëw ndànk julli salaamaaleykum nga daw ban jàkk foofu bu ñu amee iman ah jàkk pour am iman la pour defar ngëm yonente alayhi salaatu salaam loolu la ko yàlla dimbale mu defar ngëm waa ansaar ak muhajirin beneen bi mooy jàkk place bu ñuy sujjoote la bu ñuy jaamoo yàlla kon wa wuduxun alkaamil lahu wa taa al mutlaq li kulli awamirihi soo duggee jàkk da ngaa war a nangul yàlla lépp luñ lay wax parce que yaa ngi ci néegu yàlla léegi-léegi bi nga duggee néegu procureur rek procureur li mu wax da nga koo nang nga dugg néegu borom procureur luñ la wax nga bañ noonu neex ngay duggee sa mbax nañ sa bopp yenn saa yi sax nga gis imam bi buy ñëw takk dimanche comme nit ñi dañuy bëri mu ne nii mbax na bi di jaay maana weengal ko moom weengal am na paay lu ñuy def seen xaw ma mbax ne ñu ne boo ko defee nii ñaari jabar nga yor xaw ma boo nee nii ñett la xaw ma daal lu ñu wax am na daal système yi ñu koy waxee ñu gis day ñëw ne ko nii comme ñaari jabar la mu ne ko taf ci digg bi ndeysaan ñaari EV yi daal di génn quoi muy woon ne man ñaari jabar laa yor jam ngi dégg ne imaam ñaar la yor de gars yi mbax na bi lañu xool rek ne imaam ñaar la yor loolu mooy lan jaaxaan yooyu ba ci biir jàkk wala nga dugg ci jàkk ji nga fekk payi di jaaxaan di di kaf ci biir jàkk ji di kaf moo tax yenn saa yi sax bu ñuy takk ñu ne kenn du fi waxtaan nañ takk génn kenn du fi wax ndax xam nañ ne ay caaxaankat lañ foog ñu caaxaan ci biir jàkk mbokk yi إذا لم تكن المسجد تربية داخل المسجد فقد جاء منا دور كبير جدا gis nga ku dugg ci ñun ci jàkk fekk doo fa am yar kenn ku nekk ñun laa bu fekkee da ngay dem jàkk te jàkk ji doo fa jëlee yar yow ngeen xam ne ñàkk nañ lépp ndax yonent bi ci jàkk la doon yaree yonent bi ci jàkk la Aboubacar Saddi xam ngeen ko ndax Sénégal mën nañu am ku ko gën ah fan la ko yonent bi defaree Umar ibnul Xattaab fan la ko yonent bi defaree Ousmane ibnu Affan Ali ibnu Abi Talib ñoom Bilal Muaz jigéen ñeeg ñëpp yonent bi ci biir jàkk ji la leen defaree ñun léegi lan la ñuy wax jigéen sax du dem jàkk jigéen du dem jàkk waaw jigéen du dem jàkk ñun loolu la ñuy wax fii jigéen du dem jàkk yow dégg naa sa doom bu jigéen bi day dem jàkk wala xale du dem jàkk xale bu ndaw yow sa doom bi day dem jàkk léegi mu dee ci léegi mu dee xale bu ndaw bi dem jàkk sax bu dee da nga gis bàyyi xamoon nañ ko kii moo ko def xoon nañ ko léegi xale bu ndaw di dem jàkk léegi la xale yi sax di commencé léegi nii affaire bi lañ bàyyi nit ñi di dem jàkk boo nekkoon xale ngay dem jàkk dañ naan yi téyel sa doom ji téye ko téye ko paa yi muy buuxanteel ci jàkk ji wóorul démb benn mbokk moom moo koy fàttali cité 3 bi ñu fay jàng bulubul maram ci jàkk ji ah waaw bu baax benn paa ne ñun biñ nekkee xale daawuñu xëccoog sunuy papa sàppe premier ñun xaalis lañ doon liggéey waaye nekk xale di xëccoo jàkk ci ñàkk fayda yi nga am paa bi da la doon xasee cité trois waaw loolu kay ah waaw loolu kay di wér la wallaay bu ñu nee bismillah rek comme cinq heures la ñuy jàng ci école bi bu ñu nee bismillah rek gars yi dañuy fees dell ci jàkk ji tàpp sax pour pour pour bu ñu paree rek dem jàngi léegi nag paa bi nekkee loolu da koy métti juróomi waxtu ci jàkk ji xale bu ñu dee waaw waaw waaw mu ne juróomi waxtu ci jàkk xale bu dul liggéey rek ko def xale bu dul liggéey moom dong moo fi ñëw jàkk xale bu dul liggéey wala loolu ndeysaan avec ça ñu bëgg nit ñi baax jàkk yi ñoo ñoo ñoo ñoo doy ñoo doy waar jàkk yi ñoo am problème wala sax ñu ne ñi nekk ci jàkk yi ñoo am problème waaw
loolu moo tax jàkk yi am problème mbokk jullit yi Euh, jàkka place la boo xam ne yaxfazu alal muslimina diinahum jàkka place la buy garde ngëm moo tax gis nga démb islam ku am problème ci jàkka ngay daw nëbbatu ji même sa kër sax buñ la boo waxee dara ñu indi la problème da ngay daw nëbbatu ji ci jàkka ji boo ko demee sa ngëm bi daal di feesaat nga delluwaat li ajli hada kanat hayatu lmuslimina taduru fi majaliha hawla mihwari lmasjid loolu nag démb démb lislaam jullit yi seen lépp ci jàkk la woon bu ñuy takk fu ñu koy defee ci jàkk ji bu nit gaañoo ci jihaad ñu indi la ci jàkk ji yonente bi buy takk sëy def ko ci jàkk ji buy jubale ay nit def ko ci jàkk ji buy waxtaan def ko ci jàkk ji lépp lu ñuy def ci jàkk ji la jàkk ji moo doon sëy social bi mais tey yooyu yëpp dafa teggeeku ci suñu dund ba mu set wicc wicc wicc wicc wicc ñetteelu tomb mbokk yi mooy almasjid makaanu iltiqaai almuslimin wa taqwiyatu alawaasir baynahum jàkka mooy place bu jullit yi di daje jàkka mooy place bi yeew diggante yi ba ñëpp bëggante ñu bokk koñ ci bis bi ñaata yoon la ñuy gisee ci jàkka ji juróom yoon su ngeen demee ba tële semaine bi ngeen gisee benn yoon muy su ngeen demee ba tële at mi ngeen gisee ñaari yoon it tabaski ko korite gis nga du ngeen mës a toog te du ngeen gisee moo tax jullit yooyu jamono yooyu ñëpp a xamante ndax yonente saa salaam su la sëlmalee rek dina yonente diw ñëwul tey de mu ne seeti leen lu ko jot ñëpp a xamante maa ngi yow juróomi yoon ñuy daje ci jàkka ji dañuy bañante wala dañuy bëggante waaye démb la woon de loolu waaye tey de am na koo xam ne te bëggul nga ñëw jàkk benn bilaal dafa feebar bilaal de bilaal jàkk bu feebar mu dégg beneen bilaal bi numéro 2 bi di julli jot rek mu taaj allahu akbar mu ne baa ngi fi mu def mu ngi yàq micro bi mu ngi yàq micro bi jama jee ko taal sa bopp xam nga lu mu daan def bu bu ñëwee jàkk ji bu noonu defee la jël micro bi dugal ci poosam pour bu kële ñëw di noonu kooku mu ne maa ko gën a neex baat ki xamul dara léegi xam ngeen ne maa ko gën a neex baat wax leen rek moom loolu mooy problème maa ko gën a neex baat kële di noonu rek mu ne day yàq micro bi moom bu ñëwee jàkk ji noonu bu pare day jël micro bi def ci poosam léegi nag yàlla def feebar loo ko wala loolu moo tax tey démb julli ñi dañuy dañuy jàkk bëggante tey ñu dañuy jàkk subhanallah da ngay gis ñaar ñu daje jàkk bi ñu bëggante ñu daje benn place barki démb laa doon tooñ benn waay boo xam ne damaa daje ak moom mu ne ma alfalaa laa doon jàngee fekk dëkk nañ 15 ans xaw ma ne woon alfalaa laa doon jàngee te bokk nañ classe ma daje ak moom ma ne ko tey dinaa la def loolu paay di def mu ne paay lu ñuy def man ko paay def benn paay da ngay daje ak moom ci jàkk du ngeen bëggante nga daje ak moom ci koñ bi du ngeen bëggante nga daje ngénte du ngeen bëggante ngeen daje seen kër sëriñ yéen ñaar xamoo woon ne kii mooy sëriñam moom tamit xamul woon ne kii mooy sëriñ nga daje rek mu toog nga toog nga ne ko ah diw loolu fi mu ne la ma kii mooy sama sëriñ mooy sama wasi la nga ne ko ah rek nga teg sa si mi wax rek rek kott ah yow nag bëgg naa la nag bëgg naa la ma ne ko yéen ngeen bokk ko ci ñaar ma ne ko waa ji tey dinaa la def loolu waa ji def sol ma ne xoolal jàkk bëggante wu loolu ngeen daje néegu nit ngeen bëggante ngeen daje néegu yàlla nga bañ ko parce que day na waar kon dañu xam ne jàkk mooy defar suñu diggante jàkk mooy tax suñu relation yi takkoo ñun ñëpp ñu amante ñu amante suñu relation suñu biir juróomi yoon ngeen di daje yéen a ngi nuyonte xam na li nga tudd xam nga ko xam nga këram xam na ko loolu moom mooy njëriñu jàkk mbokk yi dafay dëgëral diggante yi qul li billahi aleyk mu ne law lam takun muntaziman fi salati aljamaa bil masjid kam taarifu man yusalli maaka aljumaa da ngay gis ñaar ñoo xam ne waxuma sax julli juróom mais jumaa rek ñoo bokk fi ñuy jullee xamante nañ ndax jumaa bi rek semaine bu nekk la ñuy gisante rek xamante waaw kon ñii julli ñii julli juróomi yoon nag ñoom nag ma dama wax naa leen sànq ne ku dëkk ci koñ bi te imaam bi xamu la xoolaatal sa bopp buñ lay lim ci ñu baax ñi yow waruñu laa limaale buñ lay lim ci jullit yi waruñu laa lim jullit day xam néegu yàlla maa ngi fàttaliku du ma dañ mukk mukk mukk di ko wax ci waxtaan yi benn xale bu góor boo xam ne maa moom ñoo bokk koñ ñu julli fajar rek bilaal bi gis ku mu toog léegi bilaal bi jëm ci moom ne ko asalaamaaleykum jox ñu ko mbaa jàmm la mbaa jàmm la mu ne ko jàmm la kay mu ne ko da nga julli si mu ne alhamdulilah rabbil alamin bilaal dafa yaakaar ne caabi morgue bi la jël si maam moo dee wala nga gis julli ci jàkk nga tiit dafa ne caabi morgue lay jël si xam nga loolu loolu musiba la waaye waa ji fa la jógee ii biñ génnee mën na ko yow xamul tax paa bi loolu la wax ne mbaa jàmm la mu ne xaw ma ko de man dafa yaakaar ne seen waa kër dafa am ku dee nga jël si caabi morgue bi xam nga mosoo ñëw ci jàkk ji wax nga dëgg de wax nga dëgg de te góorgóorlu waaye sénégalais saa yoo gisee muy dem jàkk am dafa am lu xew am na benn booy boo xam ne maa ngi moom ñoo sës kër damaa ñëw tisbaar gis ko ma ñëw takkusaan gis ko ñëw timis gis ko ma ñëw gee gis ma ko yaa am xëy na ma ne dem na dem na bi ci waaw dana waaj da doon ñaan yàlla pour pour affaire bi normal yal na yàlla ginti ixwatal iman jàkk day yeew diggante yi ndax dañuy gisee kullu usbu dañuy gisee kullu yawmin kullu usbu kullu shahr hatta at bi sax dañuy gisee loolu nag dafay yeew diggante jullit yi duñu wuute lu bari rawatina nag jàkk joo xam ne waxtu yu nekk am na bayaan fii ñaata jàkk ngeen gis saa yu jullee pare mu am bayaan bal sax dañuy njëkk a xeex kii bayaan ci jàkk ji fexe ba dootul fi dootul fi bayaan waaw dootul loolu lañ kooku lañuy njëkk a tëj gémmiñu xam nga lu waral loolu yëpp mu imaam yi jànguñu xam nga imaam bu jàngul su borom xam-xam nekkee ci ginnaawam day am problème moo tax tout lay def pour fexe borom xam-xam bi gerte jàkka ji lu fi waa ji bëgg a def ñu kañ ko ko lu fi bëgg a wax ñu ba pare day jël juróom dof yu mel ne moom teg ko ci wetam waaw ne gis ngeen jiw suñ jàkk ji la bëgg a naan waaye nag na ngeen am fulla na ngeen am fayda bu leen ko may fu mu yekkee nakam am na benn waay boo xam ne xam nga lan lañ koy yóbbee police bu ñëwee ba ci buntu jàkka ji wax bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma aftah li abaamak li nga koy wax ci kaw dafa bëri gars yi yóbbu ko préfecture xam nga lan moo tax affaire bi grave mooy préfet dafa jàng bi leen préfet woowee ñoom waa jàkk ji ñëw waa ji ñëw toog préfet ko yow da ngay nekk ci jàkk ji di tër ci biir di yuuxu ci kaw di wax lan mooy sa problème ak paa yi waa ji ne préfet jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant bi nga ma laajee ñii samay papa la ñu baax lañ am ak ñoom problème man de li yonent bi wax laay def yonent bi neen boo ñëwee ci buntu jàkk ji waxal bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma aftah li abwaaba rahmatik préfet ne ko loolu lu muy tekk waaye daal koy leeral mu ne est ce que nii nga koy waxee nii nga mu ne ko nii ma ko waxee nii laa koy waxee mu ne est ce que est ce que vraiment yéen yéen yéen loolu lu ngeen ci xam gars yi waa ji bu lay nettali histoire bi ah non sa yaram day daw billahi wallahi taala dafa toog di ko wax ba sama buñ taa mu yërëm waa ji ti xoolal man yàlla na yàlla jubal mbokk jullit yi yàlla nañ dégg diine Sénégal dafa bëri ñu nekk jàkk yi te xamuñu dara loolu moo tax jàkk yi mënuñu def seen liggéey jàkk dafa war a dund jàkk ji bu dundee rek koñ bi am jàmm gis nga agresseurs yi ñuy wax ak sax yéen a ngi wax léegi-léegi jàkk jàkk ji sàcc nañu ma sonn mais ki dugg ci jàkk di sàcc dafa xamul fi mu dugg ki ko waroon defar su ñëwee di ko yàq ça veut dire que xamul li mu war a defar lan la waxuñu ko kan mooy dem pale di sàcc mos ngeen ko dégg mos ngeen dégg ñu ne sàcc nañu pale dégg ngeen mos ngeen yeewu fajal ngeen dégg journaliste suñu ne la démb palais dañ ko cambriolé dugg nañ bureau mag président de la république mos ngeen ko dégg fii mos ngeen dégg ñu ne dañoo cambriolé bureau commissaire lu la sàcc yi ragal dem foofu di ñëw ci jàkk yi parce que fee lañ leen waxal lu fa nekk fee lañ leen tiitloo fii kenn waxu leen lu fi nekk fii kenn waxu leen fi dara jàkk joo xam ne boo demee sax bu ilimaan bi sëmmale ñeme wax asalaamaaleykum imam man de am naa laaj waaw mais laaj dama nga laaj ci ko fële dama dama dama dama nga gis gars yi commencé wax lu muy laaj waaw mais laaj fii la koy laaj nga dem téléphone yi raandaw gars yi si la wax lan yàlla jubal asalaamaaleykum kon mbokk yi maa ngi tënk fi waxtaan bi asalaamaaleykum boo lëgee ngeen teel a ñëw dégg ngeen
alhamdulillahi alladi xalaan alayha ma kunna naxtar dawra an qadan allah doomu dañuy bokk ci nit ñi gannaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala déglu waxtaan bu am solo bi nga xam ne oustaz def na ko